mbokki xarit yi ñuy teewlu à travers Sunugal 24 salaamaaleykum am mbégte rek a fees ci xibaaru bés bi xibaaru bés bi dañu koy dooree ak politique ñu ko invité ca émission bët set moom journaliste bi nag ma nga doon xamle ni rek nouveau député bi di Pape Djibril Fall waa section de recherche dañ ko daal di convoqué moom Pape Djibril Fall nag daal dinay weddi loolu ba mu set wecc ndax rek député bu yees bi ci ay kàddoom ma ngay xamle ni rek kenn convoqué wu ko te nag li ñu ko waxal nii moom dina ko lijjanti ndax rek fas yéene wu koo bàyyi mu seet politique ba tey Bougane Gueye Dany di njiital gëm sa bopp moom nag ma ngay waajal rek li nga xam ne mooy élection présidentielle yu yi moom Bougane nag fësal na rek ab slogan tuddee ko tekki jot na l'essor du Sénégal c'est maintenant moom Bougane nag door na ab campagne bu yàgg ndax rek jugul benn yoon ci di dugg fépp fi nga xam ne rek ay gox ak goxaat la yu nekk ci réewum Sénégal bi ngir rek jege askan wi loolee waral nag moom njiital gëm sa bop di dëggal rek ab candidature am ci élection Aliou Sané nag yoon daal dina koy teg loxo lu ëpp rek ci xaalis boobu nag ñu ngi ko tasaare ci seen biir ñoom agent wu yooyu lay la ca des nag ñu aar ay entrepreneur ak i fournisseur Alex Manga di chef agence principale bu poste finance ak Abdoulaye Faye di chef des chèques postaux et responsable de la grande caisse ba moom daal dina leen yoon tamit daal dina leen di teg loxo ginnaaw ba nga xamee ne rek kii di Saliou Fedior di DG de poste finance bi nga xam ne génne woon nañ ko foofu déposé woon na fa ab plainte yëmbal ab groupe agresseur yu yor ay ngànnaay ñoo dugg rek ci benn kër ba diggu bëccëg ngir amal fa ab agression ñoom ñooñee nag ña nga toll ci limuk juróom benn agresseur ku ci nekk ci ñoom yor ab paak noonee rek la ñu fëgg ca benn appartement ba ñu leen ubbilee nag ñuy laajte nit koo xam ne ñoom waa kër ga xamuñu ko benn yoon bu muy jéem rek di tëj boobu lay bunt ngir daw yooyu lay agresseur la juróom ci ñoom daal di bloqué porte boobu ba ñu duggee ca biir kër ga ak doole ñeent ci ñoom dajale jigéen yi nga xam ne rek nekkoon nañ ca kër googu di leen menacé ak ay paak tëj leen ci benn néeg yeneen ñaar yi nga xam ne rek ñoo des ci juróom benn agresseur yooyu lay ñoom moom lépp la nekkoon ca kër ga rek daal dinañ koy roñ lu tolloo ñaari téléphone ci iPhone benn iPhone ak ay cheveux benn chaîne or bu valeur toll ci 200 000 benn sac bu def ay documents administratifs ak i titre de voyage ba ñu génnee kër ga nag seen magu kër googee daal dinay dem ci commissariat bu Comico yëmbal gannaaw bu police bu yëmbal boobu wéyalee ab enquête daal dinañ teg loxo ñeent ca yooyu di toppee rek di association de Wally Ballago Seck ak Viviane doon ay waykat fii ci Sénégal ñoom ñaan ñi nag seen tournée yi nga xam ne rek waroon nañu koo amal ca Canada ak États-Unis naan rek dina am wala du am ndax rek seeni visa ya nga xam ne moom la waroon demee ca ñaari dëkk yooyu lay dara baaxu ci Ndiaga Euro di ménager de Wally Seck la mooy xam le rek mooy problème bi moom lépp ca Viviane la ndax rek amul permis de travail pour rek ngir mën a liggéey ca États-Unis a am ginnaaw rek bi nga xamee ni ci ay combat moom Papa Boy Djiné jëlewu ci lenn lu dul ay défaite ñenn nag ci ay fansam doon commentaire ay commentaire yoo xam ne dafa négatif ci moom mi lay ña ngay xam le ne rek kii di Papa Boy Djiné ba mu takkee Ndeye ba léegi amul benn yoon rek victoire loolay waral nag Ndeye Gueye da koo jigadi kon ñoom ay fansam lañ koy ñaan rek ngir mu fase ko ndax rek mu mën leen a di bégal ci si ay combat am bi nag ma nga xëy rek di tontu yooyu lay détracteur am nee na nag wax jooju moom amu ci sax lu mu ciy wax la mu xam le rek mooy kii di jabaram di Ndeye Gueye bu ko fekkoon ak góor sax taxul mu fase ko ndax rekk jabaram ji moom déggal na ko te yërëm na ko te rek nag la lam koy ñaanal mooy yàlla may leen njaboot ba nga xam ne rek dina ko wan moom mi fa mu ko féetee boo koy xarit yi lii rek moo fi jotoon a ruus comme xibaar di leen jox dig daja rek ba ëllëg incha allah